Fallou yan gars yi dañuy dem liggéey léegi. jërë ngeen jëf mbokku internet yi ñu ngi leen nuyu bu baax baax di leen ziare toppal leen Sa Thiès ak Reug Reug le 5 mars la incha allahu rabi arène nationale ñu ci ànd ak Gaston production ah ngeen koy direct sur seen office point com tey nag ñu ngi fii ci corniche bi fekk fi Sa Thiès ak timam ah, ak coach gii ah, Papi waaw Papi Papi coach moom tamit mu ngi ci deni mu ngi ci salle ba ci box bi saa dama lay nuyu bàyyi la nga nuyu ak mbokku internet yëpp su ko defee ñu waxtaanee se diggante ak ki nga xamante ne moom mooy sa adversaire pour le 5 février. mars mars di Reug Reug. waaw di yàlla bu baax di julli ci yonent bi di musut seytaane aussi di profité di ñaanal ñu génn àdduna ñëpp yàlla yërëm leen xaaral yaa jëna ñi euh, tëdd hôpital aussi yàlla yëkkati leen uh-huh. ñu caa féete ginaaw caa féete leen kanam ci ñaan yàlla Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg yàlla tàppe xool may ñu wér a gudd fan sutura ak feex faj aajo yi soxla yëpp di ñaanal sama waajur ak mboolem jullit ya fa nekk fañ nekk gënal leen aussi di baalu àq ñëpp di baal ñëpp àq su di ñaanal sama bopp di santaat baax baax di ñaanal sama yaay yàlla yàggal ko fekk yaay ñëpp di ñaan yàlla may ma ndama ah, la 5 mars bi tax nga ñëw fi tey mhm. comme ni ma ko waxee dañ la fekk ci corniche bi nga nekk di waajal sa diggante Reug Reug mais bari ñu ñëw ci préparation bi yàgg Reug lan moo leen boole parce que gis nañ ay temps doon na la fi laaj nga ne ko mën nañ bëre ba bàyyi du ñu laale lan la defaat ci diggante bi ak Sa Thiès lan la ñàkk def ba làmb boole la làmb boole nañu amoon ñu ko doon dox problème cachet moo nekk ko suñu cachet waaye am na loo bàyyi ne woon naa ko mën naa laa fay sax ñu bëri waaw ba ko fàtte voilà jógewuma sax ci loolu te sañoon naa ko amoon naa opportunité boobu voilà nekkul dama ko bañ a dama bañ a moom mais moment boobu boo gisee lu maanaam boo gisee lu gën lan lay wax su ma juumul moom ngay jëli waaw ci foofu laa tolloon te loolu moom ma gënaloon foofu. Mhm. ci diggante bi moom dafa prouver ba egsi ci yéen wala Sa Thiès li mu war a li mu war a def ci làmb ba Reug Reug ñàkk la deful. askan bi moo ne ma carrément bëreel ak Reug Reug amateur loolu dara umpale ci. làmb amateur la nan nga koy waajalee ndax adversaire bi coréance la am na ñu jàpp ne adversaire bu mel ni moom. mosoo ko am donte ñu ngi koy wax ne adversaire bu mel ni Sa Thiès mosoo ko am est-ce que ànd nga ak ñooñu seen gis-gis que ni am na adversaire de taille boo xamante ne mosu ko am bu mel ne loolu ah man yàgg naa bëri combat soog xëy moom moo bëriwul moo bëriwul jotaay combat soog man bëri naa 3 combat 4 yoo xam ne combat soog la ba muy bëri ne ko ren combat soog la woon. may bëri Zarko mhm. euh, combat soog la woon. am na yeneen combat yoo xamante ni mooy loolu. man bisuma fokkuma sonaluma. moom jàpp na ne ñaari combat soog rek nga bëre te doon ko perte. Mhm. muy sa diggante ak Boy Niang sa sama defar rek mën a liir mën naa jàpp ne moom ñaari combat yi nga xamante ni moom la moom la dëggee combat soog mais Pape Yékini ak euh, kii euh, nu mu tudd sax. kii nekk Ikri Waalo Kilinton Kilinton mais loolu dérangé wu ma. waaw moom nag yàllaa ko bindee nu mu mel moom porox la moom ñamu daaw moom gërëm ko di ko. du du du ko a wax parce que gis nga ni ko def. waaw da ko duma moom génn sa saako daan ko fa ñu mu dem defi defi recours am. waaw Pape Yékini moo ko war ndomba. waaw te moom neen du bëri du bëri du bëri erreur. ma loolu ma si jaaxal war nit ki ndomba mënoo daan lu mu doon. ko nag da nga jàpp ne Reug Reug am na deux défaites ci lamb. man de tollu ma sax fu may toog leneen man xam nga lan laa kak lan laa ci lan laa nekk nii cinq yi moo yi ma cité ci ban laa ko ciy jox man néew ma dëgër dëgër dëgër pare naa ci bu yàgg yàlla rek laay xaar bis mu may ma ndam point final. Uh-huh. voilà. nga ne cinq programme yi nga. la cinq mars moo war moo waral ma ci programme yi. cinq kon cinq programme ngay ngay andi. jël naa lu bari mais cinq yi laa cité bu mu bu ko ci def bu mu cër kii rejeté beneen bi na ñëw. ci mu koy neex ci mu koy nax loolu ci xeex la. wala ci bëre ci bëre dóor nekkuñu ci bëre ci leneen man bari dóor laay wax. mais bëre ba mën ngeen bëre mën ngeen bëre ba daan jël bu rëy am. te dóor du ci am. waaw da nga ne bëri lan dóor. Ah. kan liñ ci soxla du daam. voilà cinq yi lu ñu ci am baax lu ñu ci am ci ci kii bi. cinq yi lan ak lan la. du ma la ci wax kenn mais dinaa ko jafe. non wax ñu ci waaw waaw ma lu ma ci aw ma lu ma ak nit. mais dégg na ko dégg nga ko la ma ci des nag li ci des nag mooy jëfe ko ak moom point final sekkuma ak moom wax ju bari cinq yooyu noonu ñun waxam nañu bëri gis ne wala boog gis nañ ngeen di bëri gis nañ ngeen di dóor ngeen di xeex fit soxla nañ ko ci làmb mais yooyu noonu yëpp moom jàpp na ni moo la moom moo la dàq bëre fuuf fuuf fuuf fuuf ba jàkkaarloon na ak man sax ni ma bu ngeen doon bëre ci moom laay teg parce que jàpp na ni moom moo la dàq bëre ndoxtu bëre yéen ñaar kan man daal leen laa koy waxaat moom ay technique am bëri na trop yu mu nduróo ci Siteu ak bëre moom sitam ah, maanaam sit yi mu daanee bëri na benn daanee na ko ay nit yi nit man samay samay technique mënoo cee jël ñett yi ci bokk yi ci bokk. Hmm. technique yi may daane euh, maanaam man technique yi ma daane sama adversaire moo ci ëpp. moom ay technique lan lan lay bëree moom. sama doom nee naa la man déggoo ma naa la jàpp naa man li ma la man sama doom sama doom. moo taxoon na man rëgg-rëgg nii lay bëri papa. man kon li ma fi nekk di di di loolu. non mais sa na ko xam ko. waaw bu ku dee sa bàmmeel xam nga li may wax bu ci nekk di andi leneen wala ñu bëgg. débat d'accord léegi yow yaa koy voilà dama ne soxlaw ma sax ñu expliquer li muy bëree ndax Sénégal yoo xam ne li muy bëree li muy bëree bu ko fi nekkee di wax loolu yàq temps la ndax man bërëm man gisuma ko ku dee sa bàmmeel man gisuma bërëm wallaay gisuma bërëm bu ma sonal kanaara la ak kakatar la jàppante bokkante loolu la ñor bala jàppee xëcc añ jéem ak yooyu man damaa nekk ci yooyu mun na wóor bi wóor naa alxuraan ko bi toog di jooy. wallaay les jeunes ganaar la dafa yeex. Lamine. bu amee beneen stratégie. amul beneen stratégie mu am bopp bi baaxul. bopp bi baaxul xelam bëriwul. xeex moom nee na xalaatoo ko def ak yow. wallaay moom moo du xeex. parce que nee na tapper nga yow. moom moom ma jërëjëf man lu mu ma safu ma. lu mu ma safu ma mais moom ba léegi du taxaw ak nit ki xaat ko ak pare na def ko le ko wax. wax na ko yow la ko wax. ok man nag soxlaa mu wax ma ko na ko def. na ko def mais Reug nga xeex ak moom ak temps yi yeneen sport de combat yi mu nekk. li ma sekk ak moom Lamine daan laa sekk ak moom sekkuma ak moom leneen wax ji foofu laa ko tënk. non man ndax da nga xeex ak moom ak yeneen sport de combat yi muy suivre am ay coach yu bees am yeneen sparring ngeen bàyyi xel ci lenn. waaw bëri dóor la ñu wax. bu leen ko comparé ak ay mbapat yu daan def. bu leen ko comparé ak MMA yi mu daan def MMA yi mu boo xoolee bëri ci ay yi moo ko ci dimbale ba léegi taxaw di xeex ak kenn xeexal kooku moo ko jàpp moo ko dóor ba mu saale ne carrément ci pour la ko dóor ay déclassé mais ba léegi gisoo taxaw di dóor ak yooyu bu dóoree tànkam daw na mbapat la koy dénkoon ne point final leneen lu ci des mënoo leen ko comparé lamb lamb bokkul ak mbapat bëri dóor bokkul ak bëri simple bëri dóor bokk bëri simple bokkut ak euh, MMA MMA bokkut ak bëri dóor bu leen comparé yooyu fii gis Tidiane Faye bu doon loolu dong dong dong dong Tidiane Faye fam foofu noonu kenn du ko fa dab moo euh, lamsaar boobu mu nekk moo leen dàq bëri junni yoon wane na ko loolu waaw moo leen dàq bëri junni yoon mënta day bëri ñoo xamante bi moom moo leen dàq ñu daan ko lam moo baaxoo noonu bàyyi leen di jël tubaab sax boo demee naan ko non mais attends dama ne dama rek man bëri door laa sekk ak yow sax di wax ak moom Ah. MMA am kooku moom la engagé moom la intéressé man ça m'intéresse pas. mais performance yi mu def kon yow. gisuma ko man lijjantuma ko man performance lu si teg moom mooy la am bëri dóor man moo ma xëcc MMA lu lu ma ci wax parce que bii bëri MMA dama koy ñaanal moom ci nag parce que en fait bul dara drapeau Sénégal moom la yóbbu. Mhm. waaw mais lu weesoo loolu nag fii nag moom c'est le sénégalais. gisoo dara lu mu ci def. wallahi lazim comme ci daan six fois gis nga ko ñeent yëpp ay buux la. day dajale mën ah. man kenn du ma dajale man balaa ngaa <laughs> balaa ngaa sax fekk daanu nga bi yàgg. combat yooyu nag lay bañ sa digganteeg moom. munu ko da koo sonal nee na koy bañ. da koo sonal. parce que cité na ay bébé bébé jën tuddul nañ ko ko mu ne bébé jën moo la dàq bëre fuuf. waaw Elton moo la dàq bëree. waaw ëpp la doole. waaw ay gris deux. waaw am parax parax am. waaw def affaire tapet boo boo daanee baax te loolu. bébé jën moom da koo sonal. mais bëre cadre ñi nga xamante ne dañoo am moom xam ne moom ñooñu peut-être seen rapidité du gaaw. voilà loolu mooy seen différence ak ñoom bébé jën ak ñoom Sa Thiès final. mën nga bëre ak xamante ne presque lépp muscle la. ba may bëree ba may ba may bëree ba may bëree ak Jordan moom sut moom ëpp. di Reug Reug kay mu ëpp Jordan instant dama ne la ba may bëre ak Jordan Jordan moom ëpp ko moom da nga wax lu neex waaye ko ëpp. mënu ko ëpp wallaay léegi mënu ko ëpp. ko gis dama sut kay waaye. dama ne waaw jeex na Lamine Jordan yàlla macha allah moo ko sut luur la boo jàppee ne ab ndaama ak njool nga ñu tëkkale ça fait deux bokkul Reug Reug moom bu Reug Reug guddul yéen. guddul ab ab cikili la. guddul mais jàpp nañ tamit yow ñi nga daan ñëpp da nga leen rek. man ëpp ma man yow combat yi nga nga jàpp. kan laa ëpp ay lago man tukkiwuma ah. ak kat ñaata combat laa bëri. que bu tolloo wuñ ay combat 16 combat. 13 13 victoire de défaite. waaw 13 wala 14 victoire. kan laa ci bëri te man ñi may bëri ñëpp dañuy di dem maa ngi fii toog ma. fii da laay toog di entraîner jàpp sama ñaam bu ñëwee que liggéey bi moo demee noonu. man dem ma fi di pompé wu di ëff di jaay di jaay na ma neeweeg yooyu man amuluma rendement man li ma intéressé mooy sama poids naturel moom lay dundee toog waxtu bu jotee naa dem. seen li mu ñibbi. seen combat dafa taxaw amateur yi moo dàq moo dàq ci saison moo war a dàq la ñu war a. moo war a dàq ci saison ah, léegi lan ngeen def yow pour combat bi dàq moo war a dàq kon léegi pour mu dàq yéen bëri yéen ñaari bëri yéen koy def. waaw yow sa part ko def ak naka ngeen def. man man lañ ma man maa mos a ñu ne ma saa cee cam ëppal ga lay wax. dafa yàqamti point final man kenn moo ma jépp ci làmb soobu yàlla te dinaa ko wéyee ba keroog may dee. te di nga def luy wane mu dàq mu dàq saison. man jarul ma ma koy wax dama ne la. damay laaj man kay wax. li ma la koy c'est clair dama ne la xam nga da nga taxaw fi nga ne amateur yi nee nañ sama suñu combat moo dàq ma ne la moo war a dàq kon dama la ko leeral pour mu ko leer làmb nag ñaaru koy def wax ju bëri ji jëf ju bëri ji ko gën wàññi naa wax ji féetewoo jëf ji point final. li ma andi ak li ma liggéey dinaa ko wone dinaa ko appliqué soobee yàlla. di nga doon di def ni nga doon def say adversaire arbitre siffle nga dag say jéng dal ci kaw adversaire bi. am yow ren waay nag kii hmm. ay ragal sax bu ma teelee ñëw wóor na yàlla ñu ne laamu ji neexul. ñu ne laamu ji. neexul. soo teel a dem. billaay wallaay loolu laa ragal. pourtant mën ngeen a bëri ci une minute combat boo xamante ne ñëpp dañuy téye seen. waaw du ko mën lan ngay def muy lan lan lan lan moo koy def. Ah. am doole. Ah. mën a bëre gaaw technique mais yooyu mu ngi ci moom. barke Arfo nekk ci moom. am na doole. ak man gisuma ko. Reug Reug amul doole Sadio Sadio si Sénégal yow rek yaa man néewi gëmuma man néewi laa gëmul. a ah, néewi néewi mooy la. voilà man doomu loolu. Lamine yaa ngi taxaw ne am na doole. si li nga wax nii sa ngëm sa gëm rek sa sa yaakaar. sama gis-gis. waaw sa gis-gis ok baat bi sifflé. mais dama doole. xaw ma non non non man aw ma doole. man ci sabab laa toll ci sabab laa toll ci sabab lu ci laay rayee sama morom yëpp ci laa lañu fàddee ñu yëpp. nee na ba arbitre sifflé nga dagg say jéng du moo ñibbi na këram. wallaay les bi na day na day jooy. nee na bis boo ko attaqué day ñibbi këram na kon ñi yor ay misigam nañ jóg. waaw ñoom Birane laaj na leen suuf saa Thiès dara sama ko nu ngeen def ñu ne leen day jël suñu bagage ñibbi xam ne daan nga ko bu yàgg. ndeysaan ay nitam ñooy wax. waaw la ma moom day mi li waxul. moom moo ko njëkk wax déedéet dama ñibbi rek la wax. mais dañ ko dëggal non dafa ne ñibbi la wax moom. parce que dañ ne su boobaa wax ni waxoo ko. wallaay moo ko wax ne saa bàyyi wax li moom laa lay tontu mais damaa bëgg wax da nga wax wax ci direct ma tontu la wax ci direct. ñu diggante leen seet leneen yaa ngi dama ne rek rek. muy bañ moo nekk ci man te bu ko neexee bu ko naqaree naa ko def moom na jéem forcé balaa balaa ma yegsi mais dama naa la bu ma ci moom wallaay lazim bi ngeen dal seen gémmiñ ne combat bi neexul saa yàq na suñu làmb waru woon defee nii daa waroon a xaar ba ci kanam doo koy daal. ah falaa yem ak yow. li may liggéey man li may liggéey. Ah. xam naa ko wóolu naa ko. xam nga ne ànd samay rakk dafa nekk sama sama wàllu laay def nangam. mais gis nga nit bëri wax fu mu ci yow rek bari jëf dina ci yow li ma gëm wallaay lazim maa ko mën ci bëri maa ko mën ci xeex. maa ko mën ci ci lépp li ma war a li war a def te billaahi wallaahi wa taala li ma gëm mooy su ma ko dirigé wu du ma dirigé. te yaa koy dirigé. wallaahi les bon boo ko dirigé wu kan may dirigé lamb ji kon na nga jàpp ne yow soo dirigé wu lamb ji day yàq quoi. dadul neex dadul neex taxaw fee di yóotu di yaatu di njëriñ da ngay buub lay buub ah balaa ngaa buub nga daj ah li nga xamante ne pare nga pour ku ci nekk jàpp sa ngeen man damay bëri duur nga may wax pare bi nanga man li may pare man pare naa pare man li may pare pare naa ko bis ba lay xaar a def ma def ko yow li nga wax ni moom la gën a moom moom la bëgg de moom paru sa di xat koor ah, benn benn sax moom moom daal bu doon saxoon ni pip di jàpp di buuxante mais nit nit bi maan yooyu man nekkuma ci te yooyu du ci am dubi laa di ci àgg di ci àgg ak jàmm de dóor mu daal ndax mën na am seen lami lépp mën na ci am lamb ji lépp loo ci yaakaar naam maa ngi ñaan yàlla suñu borome yàlla na neex balaa ma koo daal loolu laay ñaan parce que tamit am na waaw bu ne na neex kay amateur yi kontaan nañu parce que boo xoolee tamit ñu bëri ñu ngi taxaw làmb ji làmb ji làmb ji làmb ji mais attends làmb ji lu koy neexal ak li tax mu doon làmb dëgg ak li tax cool yi ni ñuy wax nii man ak moom ñoo koy wane combat lan la la jaral sa ndam xam nga dof mooy taxaw naan sama bakkan ak ay jaay sama bien ak yooyu du ci jaay sama bien du ci jaay sama dara te dinaa ci am ndam waaw ah, moom nee na bakkanam la ci teg. am ah, kon de wallaahi la si boobu dañu ko denc. na préparé moom na dem nga wax fan lañ koy denc kon. et làmb lii bu ci amee ndam jàppal yow ma xëy am la ko fa amee de. déedéet waaye. voilà voilà yem. saa da ngaa liggéey loo loo jàpp ne adversaire bi liggéey. Lamine man ki muy bëreel gëmuma ko man sama bopp laa gëm. ni ma gëmee yàlla wóolu yàlla noonu laa gëmee sama bopp. xam sa bopp daraay rëg rëg ci intéressé wu ma daraay rëg daraay rëg rëg fëkku ma daraay rëg rëg dérangé wu ma ñaari séance ngay def par jour. trois. moo koy defee. trois quinze ah koy def daal fa laay. ngi déglu say entraîneur ñoom nga ma fekkal man moom ma sama bopp man su may dem diin am naa ku ma yor su may dem salle am naa ku ma yor su may def musculation am naa ku ma yor su may def am naa ku ma yor su may dem piscine tamit am naa ku ma yor man lépp lu may def dama ci tàggat sama bopp man bokk ma. coxo coxoto booy yooyu nga xamante ni mooy loolu. non piscine yoo xamante dem di entrée di néewi noonu da di yaay mooy. non rek rek géej lay dem yeneen piscine non non dama ne la. amuñu affaire français dama ne français néew ma ci man ah. dama ne man lépp lu may def dañ ma ci yilif yaa ngi may dégg. loolu mooy tax ñu xam ne ñame nga. loolu moo tax ñu xam ne am nga jom loolu moo tax ñu xam ne am nga fulla mais bu dee dem géej mën naa jël samay protéine di naan comme ñëpp entraîné di néewi tool nu ma neex ma rombee njàpp di taxaw ne am na doole ma nekk ci loolu. feeñu combat bi daal noonu hardcore rek. man sama loxo yëpp gisoo dagg. ça maa ngi la koy wax ba léegi mais bàyyiwoo ci xel adversaire diis na de. Lamine loolu yow la engagé dama ne yow la engagé lu ko ëpp laay teg sama dox bi di xëccoog ma ni même pas. 140. 140 bi wax sax na ko wax xaw ma mën na ko mbir nañ ko peese ba ah yow de peese rek ko xool. man kër man moom du ma bëri sax 135 dëgg yàlla. ku ko dama bëgg a def sama yaram naa ko def. bokkuñu Lamine. waaw waaw. bokkuñu. bokku leen maanaam. bokkuñu dara encadrement bu ko fi sa tudd. staff rek bu ko fi tudd. ban staff la yàgg na man ban staff la wax ma ko. ah non man kay ah, sa staff. ja ah. eh, dama ne dama da nga tudd yaa tudd staff. non damaa laaj saa bu yow yaa bëgg a jeex sax da question. ma tontu la ma ne la kan mooy staffam. xaw ma staffam. man doo laaj man maa fi ñëw pour laaj. yaa ngi ku gën a baax encadrement. mën na la man ba pare na la maa ko gën a baax la mën na laaj moom sax kan may encadrement kan may staff waaw kon moom dafa may staff amul staff bi non man maa mën a staff mam ah, barke yàlla na moom nee na leen moo ko ngeen bëri benn combat 10 combat la bëggoon ngeen bëri ko le 5 mu daal le 10 combat 10 jël yoo xamante ne benn du ci bokk ak moom ma fay pour benn combat man moom na wuti ci xaalis ngeen ngeen dëgg la ma fay benn komba bu ma moom benn combat boobu lay bëri seet leneen am na leen lu may lu ma tal na ko 10 combats yooyu mën naa cee bëre ba doon ci roi des arènes moom amul xel boobu nee na nee na da ngaa nekk rek sinon doo làmb ci xam na ko la bay la ma daan moo xar bu weex bi waaw ah, pour la sama xarit la Bébé Fass ngeen andi woon de fii nga ma fekk géej nga ma fekk xam mi mu ngi nii ah, fas bu ah, mobilisation naka nga nar a ah encore daal wax dëgg yàlla xam naa ni sama yaakaar nag ku dëgg yàlla boo yaa ngi mobilisé wu ñu ngi waxtaan ñu ngi ne ci réunion yi. Hmm. franchement parler am naa ci yaakaar moom xam naa ne moom maa koy ëppale nit nit sax mu force. bu ah. ko neexee bu na moo lay ëppale de. bu bu ah, Falia ak ñoo jor xam Falia nen. Falia <laughs> dëgg ay maaraar la fa am amu fa wenn nit yi ñëw foofu. <laughs> yow ji bàyyi et yaa ngi wër gàllank rek fàtte woon na ko <laughs> nee na yow combat bi entraîné wu eh. fu gàllank am dem nga fa. lu mu dafa xam ko. ah xëy na da lay topp. waaw li may tax ay boy sax. waaw léegi jeex na man entraîné wu ma. maa ngi wër gàllaaj moom mu may topp kon moom lan la def. Lamine wax day raisonnable waay ah. ci say préparateur mystique dafa am ko ci nekk mbokkam. man sama préparateur mystique ah xanaa ñii ñii ñëpp ñëpp ñi may entraîné te samay xarit lañ yàgg nañ ay duñ sax mbokkam. ah nee na ki lay xëpp gàllaaj moom. kan la maa xam ah na ko wax. est-ce que bëgg laa jaxasee. mënu maa jaxasee kenn Lamine yow man ki may bëre seytaane la di man xam naa jikko. <laughs> rek wallaay seytaane nga xam naa sa jikko bu baax mais man sama bopp bi dafa baax maa la gën a baax bopp fuuf dara fokk ma yàlla rek ma ñor ak bi man gëm naa yàlla wóolu naa ko seeti leneen acca ñu demaat ci leneen. bëgg nañ ci yow kay. <laughs> waaw di gërëm waa Sénégal ak waa diaspora bi nga xamante ne. waaw balaa xaar combat bi ci seen affiche point com. waaw seen affiche point com kon fa ah. kon di ci wax ñëpp ci pep wàllu PPV bi. Mhm. na ci gars yi euh, gën a jàppale ci promoteur bi. mais ñun tamit ñu jàppale leen ci parce que tamit il faut làmb ji doon làmb ju neex mhm. fa ñuy xaar làmb ju mu am mhm. site bi dafa war a leer bu Sa Thiès di yeewaat ci kaw Reug Reug dafa war a leer point final li ci des nag maa ngi gërëm sama këcc muy ji papi ah, ah, del sama rakk yi xam nga di gërëm suma waa dëkk di waa Casamance xam di gërëm ñi nga xamante ni Saalum Saalum yi waa Gambie Sadio nee na Fall ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu bu baax a baax leen woo ci combat bi Casamance maa ngi leen ñëw bu baax. laakal ma ne ma ne Kolbe. waaw <laughs> Jimbori maa ngi koy gërëm bu baax. Jimbori borom tamit. <laughs> waaw. waaw man nañ man nañ gërëm tamit Seydina Issa. maa ngi lay gërëm bu baax a baax di wax nag maa ngi lay tàllal sama loxo. ñi nga xamante ni mooy waa kër njabootu Laay Seydina Limaam yëpp teg naa ko ci loxo di gërëm waa Touba rawatina sama sëriñ sëñ Abdou Karim di gërëm waa Tivaouane waa Kaolack waa Ndiassane di ñaanal ñëpp jàmm di. woo tamit ñi nga xamante ni aussi tamit dañ ciy jàpp Cheikh Kouyaté aussi maa ngi koy gërëm bu baax Mame Birame maa ngi koy gërëm Sadio Mané aussi tamit maa ngi ko ciy gërëm Ismaïla Sarr salaam même maa ngi ñëw yow ñun ñëpp dañ lay jàpp am nga ñëw maa ngi ñëw aussi di gërëm Pathé aussi xam nga ñoom ñëpp di diba diba di diba diba di waa maa ngi leen gërëm di gërëm euh, Marcel Marcel Diagne maa ngi koy gërëm baax a baax di gërëm tamit soom benn grand bu nekk fii maire Mouss fii mais moom bëggul ko tudd turam di gërëm Andaw Pape Mama Moussa Fall sama nit yi nga xamante ni depuis gërëm di remercier aussi sama mag di ko ñaanal aussi ci lu mu jógee la mu jëm dàqal ko ci mu nekkoon di gërëm tamit waa golf yëpp wax dëgg yàlla di gërëm waa Guédiawaye waa Kër masaar waa Buur waalo xam nga di leen gërëm ñoom ñëpp rawatina nag gox yi nga xamante ne yow liiru xoolu Guédiawaye liiru maa ngi lay gërëm bu baax a baax a baax a baax a baax ndax nit ku baax nga nit ku ñàkk ki ñaan nga ku jàpp nga jàpp ku bàyyi nga jàpp. monument bu màgget. bu ku kenn gënu ko xol. ay daa màgget. nit nga boo xamante ni yàlla na la yàlla fay sa xol yàlla na yàlla guddal sa fan yow xam nga man xam naa waa géejawaay xam nañu yàlla xam na mbëri géejawaay nag su ma ci liimee damay juum tàmbale sama mag Lac de Guiers guy gi Marley bàyyiwuma kenn mbër Kër Masaar yi di gërëm tamit aussi suñu waa école. Kër Massar Margari jóge naa fa mais dara ñaaw suñu diggante di profité tamit di ñaanal aale suma tëggkat yàlla yërëm ko xaare ko àjjana ndax amoon naa yéene aussi mu tëggal ma mais bi yoon xam na ay rakam ñooy ñëw maa ngi gërëm ñëpp nag Sénégal monde entier su ma limee nag damay juum mais maa ngi gërëm ñëpp ñoom commissaire Karfat ba dara Dof Balla euh, di nuyu tamit sama rakk bi Elu ak Alaaji Papi ak Assane ñoom ñëpp maa ngi leen di gërëm Badara Karfat Séni xam nga ba dëgg yàlla ñoom ñëpp dañuy sonn ci man te am na loo xamante ni xëy na ñu ko ba mu jeex mais képp koo xamante ni yaa ngi taxaw rek di ma jàppale rek maa ngi lay ñaanal gudd fan ak wér gu yaram ñëpp <laughs> waa Touba gax naa ko waaw sama sëriñ Sey ah, waaw euh, di profité tamit di gërëm aussi tamit Aziz Aziz Ndiaye maa ngi koy gërëm baax a baax Baye Ndiaye Ilimane Kor Ndiak Masata famille boobu yëpp li ko doole seen waajur bu góor ba ci seen waajur bu jigéen acc ki ci mag ba ki ci ndaw maa ngi leen di bàyyi ak yàlla yàlla defal leen jàmm gis nañ taxawaay gis nañ coono yi daj ci ñun wax dëgg yàlla amuñu seen fay Sëñ Abdou Karim aussi tamit di ko ñaanal yàlla bàyyi ko fi yàggal ko fi di nuyu waa olympique bi yëpp nag ndax xama rek c'est la